waaye. salaamaaleykum papa Samba Ndiaye. salaam. waaw merci beaucoup c'est vrai euh, wax nga dëgg tu as maraison raison euh, partout tout monde demande Samba Ndiaye pourquoi gisuñu Samba Ndiaye dans Wiri Wiri muy fii ci Sénégal muy partout à travers le monde je reçois ces questions chaque jour je le reçois sur mon Facebook je le reçois via internet je le reçois via Messenger vraiment ñëpp a ngi alors tout simplement pour dire que ya y a aucun problème d'ailleurs au niveau de la Tour du chaque fois Cheikh Ndiaye fait appel à moi ne ma grand si tu as si tu es bu fekkee ni libre nga est-ce que mën nga ñëw tourner sa séquence Euh, muy Sanex muy Aziz donc je les entends on s'entend très bien seulement il y a que euh, temps yi il euh, a quelque chose de nouveau loo xam ne dafa dugg naa ma vie je suis maintenant au niveau de la direction régionale de la poste donc ma nekk sama liggéey chaque jour may liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon donc je travaille le matin de 8 heures à 13 heures ngoon gi 3 heures ba 5 heures bien sûr liggéey sax man na la waru laa mën a empêcher nga nga jouer parce que nit ñi dañuy dañuy dañuy liggéey du théâtre mais nag dafa rek ne Euh, du dara du benn problème bu nekk sama diggante euh, waa Soleil Levant au contraire Soleil Levant c'est ma famille adoptive Soleil Levant fa laa bokk musuma faa jóge les responsables samay rakk lañu samay xarit lañu seulement il y a rek dama nekk ci ay affaires yu yoo xam ne yooyu rek moo ma téye woon mais je vous assure et je vous donne euh, ma parole d'honneur que bientôt bientôt vous allez me voir dans la série Wiri Wiri à l'instar des autres parce que aussi Soleil Levant ci laa bokk Soleil laa xam Fala Mine Euh, samay activité rek moom xawoon na bëri ma nekkoon ci ay bagages yu bëri yu doy waar yoo xam ne permettre moom vraiment ma boole ko ak liggéey bi ak loolu loolu rek la te loolu je crois que période boobu passé na bientôt incha allah vous mu me voir mes fans d'ici et du monde entier vraiment je di dis Samba Ndiaye et de tout cœur avec vous vos jot naa ko lu ne ci mbedd mi damay romb ñu may woo si téléphone dañ may woo di ma laaj dañ may yónnee via messenger via whatsapp via imo vraiment sama page Facebook fees dell les gens me demandent pourquoi Boko Wiri Wiri Samba Ndiaye tu as ta place là-bas effectivement jógewu ma ci soleil levant j'ai ma place dans Wiri Wiri parce que nag c'est moi Ndar yi